Imam, góor su baax a ngi nii Ablaay benn yoon la ñu toog ku yàlla sàng doo liw mukk Cees waaye kenn moomu leen waaye ku baax ku ne xam nañu la mbooleem ku nekk biir Cees di nax nit ñi xam nañu la comme àdduna yëpp nag dañ koy seetaan ma xamal leen ni leen Ablaay dafay ñëw en tant que ndongo daara doomu diine muy benn waaye dafay ñëw tam en tant que koo xam ni citoyen la am lu mu soxla ci secteur bi ñëw tàllal loxo imaam ndax jàpp na ni moom moo ko gën a jege ma ci li mu jàpp. kon nag président Mouhamed Lamine Sall mi ngi lay sant na am na yaakaar li ngay wut président li ngay wut ci dëkk bi ñu mel ni yéen ñoo ko war a wut may bàyyi rek ku mel ni man rek ñëw di ko jiital gox di ko jiital dëkk du yoon tànn maire. moo gën a metti moo gën a xat-xat ci tànn imam imam moom bu juumee ci julli ne subhanallah su ëppalee ñu ne ko subhanallah bu bu gàggee ñu gàgg ko loolu yomb na yombul ci jikko lañ koy def lañ koy seet moom imam waaye maire de la ville nee na war nañ ko seet ci jikko de bu doon bu mooy jiite réew mi pour nga nekk mair

ah nee na Thiès nam na ku mel ni yow de bari na bari na ku mel ni yow ndax réer bari na fi ñàkk bari na fi feebar bari na fi kuy dindi indi defi boobu nag ku koy dindi ah kooku imaam nee na faw mu mel ni yow président nee na yàlla na nekk yow amiin. di wax ni rek tey dañoo jógoon def euh, visit de courtoisie dem seeti euh, sunu kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk euh, au niveau.

lii nii suñu ko seetaan dinañ jóg jël suñu courage en main xool ñoom jafe-jafe yi nga xamante ni wax nañu ko mm. ñun ëllëg bu ñu askan bi wóolu incha allah dinañ saafara jafe-jafe yooyu yëpp